cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides ci altine ji dëppoog le 25 octobre 2021 di fukki fan ak juróom-ñett ci rabiyul awal di gàmmu atu 1443 ginnaaw gàddaay gi Serigne bi ñëw na ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Tiib Tiib di dëkk boo xam ne digganteem ak Mbàkke Bawol daanaka fukki kilomètre la ak ñeent nekkee ci kaw tali bi booy dem fi nga xam ne moom moo di Kolobaan dëkk bii nag Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke mi nga xam ne mooy waajuru Serigne Mountakha Mbacke Bachir moom moo sañ sànc dëkk bi at mu jot nag Serigne Mountakha Mbacke Bachir dana ñëw ci dëkk bi amal fi ngan goo xam ne ay fan lay doon ci dëkkub waajuram wu tedd wi Serigne bi nag bi muy agsi ci dëkk bi nga xam ne moom moo di tiib ay taalibe yu takk lool dalal nañ ko daal di koy gàttandu ngir mbégte gi nga xam ne at mu jot ñoom ñii dañ koy am ci dalal Serigne Mountakha Mbacke Bachir ci ngan gi nga xam ne. moom lay amal ci seen dëkk bi fii nga xam ne nag moom moo di tiib sëriñ bi dina fi def ay fan laata mu fi bàyyeekoo dem ca mbulkayel di dëkku boppam boo xam ne it at mu jot sëriñ bi dana fa amal ngan gu yaatu jazaa muntaqa xayra jazaa fi kulli saatin wa saati jazaa bihtu bi laa ilaaha illallaahu siran wa laa ilaaha illallaahu هذه القصائد قلوب الجند لي بسرى مقبى وبسرى أورك الإيد هذه القصائد قلوب الجند لي بسرى مقبى وبسرى أورك الإيد أنا والعرود والبيان لي سلبت ولبيان أربتي كتاب من المدور وبه في تتقرنان إذا كتبت إيد الأرس الباغي وذب الملائكة التباغي على نبي لاي سيف لاي سيدنا نور رسول الله الذي أبلاي أبلاي خائد الخلق لاي للإله سيدنا محمد والآل وزد به في الآل والمال وجل بجاه المنتهى آياتا رعاية القرآن سلقات وجل بدال فوق كل ماي بركة كما تري السماء وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كبر xablu akuntari bi mu dilin nawaar yàllaaw yaa ramaan yaa rahim yaa man bi majidin majidin xasum yaa wajal bi jaay muntaxaat riayat alquran sil ayaati wajal bi jaay muntaqa ayaati riayat alquran sil ayaati wajal kitaabati min sal yawmi فوق صلاة قبلت وسومي واقسم بقتل ما ابتوى من القلوب أنت الخبير والكبير والمريم ولتغننا بك وبالمسفي عن كل سالم وكل مدفي وجبت بيمين تمسدي وبرني سي وقلبي أرسلي سل سلامة كل فاسد تصوح لغير سالم اليد ديمر بسوخ بلا خراج مع السلام فايقا لا يجول أبدا بلا يقاو على الذي ساتلي تويدا لك وبرسولك الويدا سيدنا محمد والآل وزبي في الآل والآل يا جائل الخطيئة فوق السنين وذن خير يا أذيم المني وابتلي سلام آفاق المراد بلا افتئات وجلوت للمراد كما الغادي والمقتدر معصوم من الأنعاء الخضر مفعل خير جيت ما ساء كافٍ كواني كل ما أساء فردت خير الخلق تفريا يدعو إني لأوخل ويب وخديم يسر لي خدير ما تأثر على سوى لي ودا فسر كرما الكريم والمكرم وخاذ لي بشكري المكرم وأوتي مساني كالكدي والتارك مع سكوني مثل إباري سوي التمكين وجرد غابة أنفاسي يا ما يلباس للباس وجه الكتابة ككل مرسل يا من وابتلي وجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كبر خبل أكنت لي بمهدي النبر رضت لي مسيخا للجنة دار المنار والمنى والمنى وجل بقية آت الجنة سابقة إلى دخول الجنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw sëñ Muntaxa ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi sallallahu alayhi di sant Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba di sant bu baax ci biñu ñu teeroo gan gu tedd gi waaye sax du gan ndax këram la ñëw mu Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu sant yàlla bi ñu ko sunu borom mayee ñu fekke ko ren ji Euh, teeru ko ci dëkkam bi ci këram gi mu ñëw ngir nemmeeku si dëkkam bi ngir nemmeeku si taalibe yi ñu sant yàlla bu baax ndax muy lu jafe ku toll ne Serigne bu la fekk see loolu tawfeex la kon ñi ngi sant bu baax di daal gan ñi yëpp di wax ne it euh, ñi ngi sàkku ci waa dëkk bi yëpp ñëpp génn kër yi dalal gan ñi euh, fexe ba. xam ne Serigne Touba moo fi nekk Serigne Touba nag fu mu nekk ñëpp ñëw fa kon nañu bàyyi xel loolu bu baax gën a taxaw bu baax gën a takk suñu ndigg fexe ba lépp yembu te incha allah sax loolu rek mooy am euh, Serigne bi moom lu mu bëgg rek na mu ko na mu ko bëggee la koy amee incha allah euh, jërëjëf.